jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte nu koy defee àllarba bu nekk di leen dégtal seen émission face à Pape ale waxoon naa leen ne euh, ci lu ñu nekk nii euh, di xeexu coronavirus bi dañ fi dalal ay euh, ñoo borom xam-xam ñu wax ci li nga xam ne moo di feebar bi ak tamit jéego yi nga xam ne nguur gi mi ngi ko ciy def waaye du tee tamit am na ñoo xam ne tamit ay ministre lañ dañ leen fi dalal tamit ñoom it ndax pàcc bu ñu yor ci wàllu gouvernement bi. aajo na tamit ñu yëngatu ci wàllu euh, xeex bi moo tax tey jii ñu am mbégte dalal fi Abdou Karim Fofana mooy ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique monsieur le ministre ma jox la kàddu gi nga nuyoog téléspectateurs yi. Pape Alé maa ngi lay nuyu. Mhm. di la gërëm di la sant di am mbégte fekk la fii ci studio yi nga xam ne mooy studio Sen TV ci sa émission face à Pape Alé. Mhm. di nuyu mbokku Sénégal yëpp di leen ñaanal jàmm te di ñaan réew mi. yàlla musal ñu ci mbas mi nga xam ne moo fi ne téye nit ñi ba mënuñoo dem ci bërëbu jaamukaayu yàlla yi mënuñoo dem mënuñoo dikk mm-hmm. ñuy ñaan yàlla rek suñu borom saafaraal ñu ko nit ñi pastéefu ci ba nga xam ne euh, day doon un mauvais souvenir ni ko tubaab di waxee ci bu yàggul rek waaw bu yàggul rek xam nga nu ñuy def parce que xam naa dama bëgg sama waxtaan ak yow moom tey mu nekk waxtaan xam nga entre jeune la ba lay mm-hmm. dynamique mais li ma jaaxal monsieur le ministre mm-hmm. yow da nga tàmbali am benn élan waaw di dajj rek di dem ma jékki ba si yàgg gisatul la lu xew. waaw euh, du dajj di dem rek déedéet liggéey la boo xamante ne. dafa mhm. tudd euh, rénovation des espaces publics. rénovation de l' espace public nag dafa bëri ay pàcc dafa am jamono joo xam ne désencombrement la ñun dafa am lu ñuy def loo xam ne quadriptyque quadriptyque mooy ñeenti bànqaas yoo xam ne boo ko dajalee ñu mën la jox benn résultat. fu ñu mhm. dem dañu war a euh, désencombrer nettoyer aménager de surveiller de suivi bi Sénégal foo dem ñu ne la seen liggéey des na suivi moo tax dafa doon lu important loo xam président de la République Macky Sall da ciy insister na ngeen am suivi na am pérennité na am mucc donc am zone yoo xam dañ koy def mais bu ko defaree de désencombré ko euh, nettoyé ko te defuñu fa la ca war ginnaaw gi. ñëwaat ak yu demaat noonu. Mm-hmm. donc tey jii su la waxee ne dañ am plan d'urgence de Dakar tey boo xam ne kilomètres la bu ñu désensablé cinquante deux ñu teg fa ay bac à ordures dindi xeer ya fa nekk dindi point yi tey def nañ ci 25 km kilomètres alhamdulilah tey jii bu ma la ne guddi gu bala balaa euh, couvre feu bi di am dañ daan am 450 jeunes yoo xam ne ñi ngi nekk ci grande avenue Dakar yi waxuma ne lépp soppeeku na waxuma ne lépp set na waaye gis nga ne am na soppeeku grand artère du Dakar et goudi bo fa dox di chaque Goudi, amna 450 jeunes yo ont ñi ngi wër yor sen pel yor ñu recruter leen di leen fay ñuy dindi souf ci diko organiser ñu war ko continuer bu ñu Dakar ci région yi nañ ko tamit ak ak donc continuer la du rek yor yat di door ñi nga xamné ñom ñoy jaay ci mi suñu ay compatriotes lañ defar lañ bëgg dafa am yi désencombré am maa ngi xëyoon ànd ak maire de Dakar madame Soham El Wardini ma koy gërëm di ko sant ci ubbeekoom ak nangu liggéey bi mu nangu liggéey ñu ànd wër rond point yi nga xam ne ñoo nekk Dakar ñu ngi ak 108 rond point dans la région de Dakar. 108 ci Dakar rek 108 région région de Dakar 108 giratoire tey tàmbali nañ bi nga xam ne moo gën a mag pare nañ ko muy rond point OMVS foofu la VDN bi tàmbalee muy 6000 mètres carrés de rond point ñu topp ci. Euh, ancienne piste lal EMG dinañ continuer petit à petit mais comme jamono ji euh, bu ñu amee yenn ouvrier faaw ñu teel a ñibbi ndax couvre-feu beeg donc ci plan lañ nekk li ñuy def xëyu ñu nii rek di ko def ak tenir wala tëñëx tëñëx yi déedéet dañu am plan aménager euh, désencombrer nettoyer aménager. mais est-ce que balaa ngay désencombrer di nga avertir ñooñu jox leen sommation. Mhm. parce que damay ragal ëllëg nous si bitim ñooñu wëlbatiku. Mhm. ne dañ lay porter plainte parce que une sommation. jotuñu avertissement. waaw coow yooyu dinañ koy dégg mais ñun on est un état légaliste Sénégal gis nga même Sandaga sax bi ñu tàmbalee ba liggéey ba nga xam ne l'état était dans son bon droit bi ñu ne may leen ñu ndax ci fi ngeen ñu bëgg a yóbbu des na couloir yi dese na dañu arrêté waat lancer marché defar 500 cantines yoo xamante ne mi ngi waaj a pare pour yóbbu leen foofu donc ñun dañuy am. démarche marché Sandaga bi yëpp ay jóg. marché Sandaga bi yëpp yëpp yëpp ba léegi bàyyiwuñu sauf sauf sauf traditionnel bi ñu war a rebâtir. waaw dañ ko war a rebâtir mais pour l'instant ñëpp fay jóg avenue yeeg ñoom ñëpp ay dem tabaxal nañ leen 500 cantines yoo xam ne léegi mu paré ci champ de course li ci des bëreetul ci carrelage lañ nek ak yu démé non mais démarche bi chaque fois day légaliste ñun buñu amé programme dañu am programme mensuel bo xam dañ koy jox préfet de Dakar jox ko gouverneur mu jox ko préfet bu ko défé bobit ak sous préfet yi ñu prévenir leen waxtaan ak ñom bon Sénégal nak pap Alé xam nga ni mel. Hmm. yenn say di nga wax ak nit aljuma altiné mu né waxoko dara yenn say nga jox nit keuyit mu ne la keuyit bi bi nga ko àndee nangam ak nangam mais ñun li ñu waxoon rek déglu nit ñi diisoog ñoom door a jëf. déglu nañ diisoo nañ waxtu jëf nag bu jotee mënatuñ fi nekk rek soog di xaar indéfiniment dafa am mission yoo xam ne moom moo tax ñu dénk ñu liggéey bi euh, président nam ko sénégalais yi bëgg ko tamit xam nga ne tey zéro déchet bi ñu koy wax ku nekk ngi naan waaw slogan politique tey jii euh, Chine mën nañ ne marché yi nga xam ne fa la feebaru coronavirus bi jógee lu mel noonu ko indi

à 6 heures du matin mais boo xëyee le matin li nga doon daw ci guddi gi. yaa ngi koy am ci biir marché est-ce que loolu yow yaa ngi ciy un programme boo xam ne war un programme efficient. dëgg la Pape Alé mais xam nga Pape Alé d'abord dama bëgg nga xam ne euh, riposte bi nga xamné état andi na face au coronavirus dafa wara nek lo xamné c'est à la hauteur du péril. France da ngay dégg ñu ne stade trois lañ toll loolu moo tax ñu def confinement ñun tollagul niveau bobu. niveau bo toll rek dafa am lu andal. gis nga mhm. week-end bi par exemple français yi xaw nañoo génn tuuti sax ba ba ñu génnaat ne non nit ñaa ngi relâché wu ñun dañu wara a def des mesures à la hauteur de fan la toll mhm. nit ñi mën nañ leen bàyyi ñu liggéey mais nit ñi dañu wara jël tamit ay mesures de précaution distance yi ñu leen di wax di sol masque ak yeneen ak yeneen marché yi dëgg la man mii dimanche bi euh, week-end bu ne dañuy dem tëj benn marché nettoyer ko ànd ak waa UCG ak direction générale cadre de vie mais problématique bu rëy la ndax nit ñaa ngi respecté li nga xam ne moom mooy euh, règle yi ñun <clears throat> li ñu war def nañ ko UCG euh, dañ ko jox ndigal ne ko mu créer ay points propreté buntu marché yi balaa sax marché yi mbëbës mbëbës mi nga xam ne dafa am 1800 à 2000 personnes yoo xam ne dañ ne ci biir doon ay récupérateur mm-hmm. bu ñu paree

ay mesures la pour atténuer les effets légui nak bu féké ñi ngi dox té constaté nañ euh feebar bi mi ngi évoluer té ni muy évoluer bu ñu tëjul marché ak yoy peut-être que bu boba décision yi ci wad dinañ ko jël mais fi ñu toll. Mhm. ñu sante yalla bu baax deug la. Euh, feebar bi mi ngi Sénégal dëgg la am nañ 220 quelque cas. mais mhm. nañu sant yàlla suñu professionnel de santé yi ak suñu système de santé ça tient la route ba léegi daanuwul gis nga li xew ci dëkk yi nga xam ne dañu am alal am système de santé àdduna bi ñaar moo fi am dañ la naan France dañu am système de santé bu généreux état bi lim mu ciy def sax mënu ko. Mhm. ku bëgg faju ñu ne la waaye États-Unis am na xam-xam am na technologie am na lépp. waaye ku amul alal doo faju mhm. Sénégal nag bo setlo tay ci digënté ñaar système yoy ñu ngi gorlu il y a 2012 bi président Macky Sall do ñëw 20 de sénégalais ñoo amone assurance maladie tay fexé nañ ba 50 mais dégg naa couverture maladie universelle boobu te ray rey hôpitaux yu bari waaw mais ndax endettement bu bare bare waaw mais boo demoon France tamit loolu la ñuy wax dañ la naan on a creusé le déficit euh, de la sécurité sociale mais li am solo Pape euh, Alé. Mhm. mooy Sénégal ba muy Sénégal bu ne jàppoon nañ ne defar système de santé tabax ay poste de santé tabax ay case de santé tabax ay hôpitaux kese président Macky Sall ne leen déedéet dañu war am équipement yi am ñu am xam-xam waaye tamit dañ wara am ay nit yu am njëg. monsieur ministre population yi waaw wax la dama ah, dama d'accord ak yow. mais nit ñi tamit dañ wara am njëg. Mhm. bo amé poste de santé yu doy. am sa centre de santé yu doy té bo démé 2000 biñ la wara consulter di la të foo koy jëlé bo démé yor ay euh, ordonnance garab ñu né la 5000 nga wara fay té amoko fan nga koy jëlee président de la république ñëw né damay créer une politique de pouvoir d'achat médical moy lan fexé ba bi law 30 milliards par an ñu jël ko jox population donc lool tamit c'est des investissements de santé légui le système de gestion bi ak chaque jour nous devons améliorer parce que yombul a un bi problème français chaque jour le déficit de la sécurité sociale bokk na thème de campagne mais plateau médical timit ça pose problème dans les hôpitaux xam vous bu 60 ans après l'indépendance, nous fi un ben hôpital bu mag bu niveau ça pose problème quand même. Papa, allez. waaw États-Unis mi nga xam ne ñoo raw ci économie mondiale Et aujourd'hui, le coronavirus téye leen tey ba nga xam ne nit ñi France mi nga xamante système social bi système de sécurité sociale bi le plus généreux la ñu am ñi ngi jël seen ay malade di leen yeb ci avion wala di leen yeb ci train di leen yóbbu Allemagne sen plateau médical baaxul xanaa. dama bëgg ngeen xam ne réew mu ne ak li nga tollool Sénégal nag delluwul ginnaaw damay dégg keroog dem naa ci benn plateau nit ne ma euh, xanaa président Macky Sall nag war na toppatoo hôpitaux yi mais ñun ñu ngi toppatoo hôpitaux yi président de la République 2012 bi mu faloo xam nga lan la njëkk a def. Hmm. Pape Alé hôpital régional de Ziguinchor ak hôpital régional de Fatick xam nga chantier yi kañ la tàmbali ba parewul. président moo def LFR 2014 ne hôpitaux yooyu tax hôpitaux régionaux 2014 ba Sénégal mi ngi hôpitaux régionaux bu Touba ñi ngi bu mi ngi bu projet la. mais mi ngi avancé mi ngi fa suba bu Touba bi. ma wax la bu Touba bi 2016 ngeen def pose première pierre 2017 lañ ko inauguré ci lan waaw mais mën chantier mën naa am retard aéroport u Berlin mi ngi nii fukki at mënul pare ñaata commission te yu organisation ay nit ñu ci jël ay commission bari lool tamit loolu loolu xam nga waxu Pape Alé Niang la man li ma <laughs> mën a xam mooy dama koy su ma demee Pape Alé waaw li ma xam mooy uh-huh. Touba amoon na hôpital Matlaboul Fawzeyni waaw amoon na centre de santé Ndaamaat ak yooyu président Macky Sall def na fa hôpital régional bo xamné biñ ko tambalé 2016 amna ci ay jafé jafé ba mu yéx. mais tay chantier bi reprendre na jël nañ fonds 6 ak benen structure denk leen ko hôpital baa ngi avancé te loolu ay innovation yu am solo li ma bëgg nga mhm. la santé du ay infrastructure question de pouvoir d'achat la infrastructure la xam-xam plateau médical mais plateau médical bu baax xam nga fan nga koy mhm. Sénégal centre de dialyse le président Macky ñaar programme de dialyse 8 bi dem élection 2019 inauguré donc dañuy évoluer mais ne a am li Amérique France am tey li nga ñëpp ne ñun de santé. ñëpp jàppoon nañ ne ñun suñu hôpitaux yi taxawul tey lan la lan la lan la àdduna wane. Euh, états-unis non loolu wane non xaaral non mais dama lay wax. tey mhm. xam nga tey plateau médical boo koy évaluer c'est à l'épreuve des pandémies des épidémies et de certaines situations absolument d'accord dama dara duñu France duñu états-unis duñu Maroc yoruñu hôpitaux yoo xam ne lépp tuwaarkàll mais nag ñi ngi góor góorgóorlu ak li ñu am. état personnel médical bu exceptionnel mais wax faut yalla ñu ngi leen di féliciter tamit taxte tay ji ba am un taux de guérison de plus de 40 États-Unis am 6 France am 15 à 20 c'est parce que dañuy góorgóorlu tay ji ni taux de guérison bi gëna a mag boo ko xoolee. Hmm. Chine mais épidémie bi def na fa 4 mois. Euh, Corée la ñëpp di jël comme euh, exemple 60 mais les dragons dragon asiatique yi nga xam ne ñoom ñëpp dañu wax né système dafa c'est une prise en charge de l'épidémie dafa comme ku Taiwan euh, Taïwan ku melni euh, boko euh, Hong Kong Hong Kong ku melni dëkk yi Singapour mais ay 15 25 20 donc Sénégal bu mënee résultat résultats. c'est parce que état bi mi ngi def li ci personnel de santé sont pas que mu ñaw ñaw ñu ko war a plateau médicaux yi hôpitaux yi les a tamit ah, non man suis <laughs> d'accord bu euh, non non loolu que wax man président Macky Sall da nga sanctionner tous hôpitaux mhm. bu ñu ci les sanctionné mesures yi ngeen jël pour soutenir les est-ce que euh, jël ay prix baissé denrée première nécessité bi nga xam ne ñëpp lay laal parce que xam nga ba damay waxtaan ak ñoom ñu ne am nañ fichier ci bourse familiale bi mën na leen c'est bien mais am na ñoo xam ne Covid 19 bi man dina leen impacté te duñu nekk ci fichier bourse familiale yi ñooñu est-ce que bu ñu wàññi woon daare bi suñu classe gi ñun duñu ñu mën a. <laughs> mais mais Pape Alé dafa mel da nga waxtaan ak sa xarit président de la république ndaxte dafa am lu am solo loo wax mesures yi dafa war a laal ñëpp te loolu moo nekkoon li nga xam ne mooy ligne directrice ou décision yi mu jël d' abord euh, première chose ñeenti ligne la jël dafa ne d' abord nañu aar nit ñi ci wàllu santé. parce que hmm. problème de santé la d' abord. mu ne nag nañu aar famille yi njaboot gi aar économie bi mooy entreprise yi ba pare nag fexe marché yi ñu leen di ravitailler quatre niveaux de décision la jël léegi li nga xam ne moo jëm ci njaboot yi d' abord aide alimentaire 69 milliards li ñu war a santé président mooy d' abord. ubbeeku bi mu am woyof bi mu am ubbi déglu sénégalais yëpp am na ñu ne sax way ñii ñëpp lu ñu wut pale mais dafa am jamono yoo xam ne du jamonoy xëccoo du jamonoy xiiroo ŋaayoo man ma ciy profité ci turu APR ak Benno Bokk Yaakaar di sant leader politique yi leader religieux yi ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañ wuy si président mais ñu jaxasoo waxtaan naka nga gisee ñii nee nañ cinquante milliards yi doyul ñii nee nañ nangam. Hmm. ñii nee nañ war nañ ci yokk nangam mais d'abord lu mel ni bu amee papaale li ñu war a def mooy sàmm ñi gën a loru. ak ñi gën a néew doole defe naa président loolu la def mooy jël aide alimentaire président depuis 2013 2014 dafa créer li nga xam ne mooy bourse de sécurité familiale. Mhm. bi mu ko defee ba pare mu créer registre national unique ñu ne tey 588000 familles ñoo ci nekk. 588000 familles mën nga jàpp ne famille bu nekk juróom ba juróom-ñett ba fukk ça dépend mën nañ jël moyen nu 8. mais président de la république ne ñooñu kese impacté wuñ comme ni nga ko waxee loo tax ma lay tooñ ne la ndax da ngeen da ngeen déggoo. <laughs> mu ne am na ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi doon liggéey ci restaurant. am na ñoo xamante ne ñu ngi liggéey ci hôtel hôtel boobu liggéeyatul am na ñoo xam ne ñu ngi doon wër di jaay mu ne donc danaa ko yokk sa mu jógee cinq cent quatre vingt ba un million muy quatre cent onze mille familles mais naka lañ koy séddalee dégg naa débat yu bëri ci loolu xam nga nit ñi yenn saa ñu ñaaw njot te wax dëgg yàlla ki andi bourse de sécurité familiale ki andi CMU kooku yërëm na njaboot yi du kooku mooy jël di ko joxe n'importe comment mu ne dëkk boo leen dem préfet bi sous préfet bi maire yi. organisation communautaire de base yi toog leen ngeen déglu ngeen wax ñan ñoo ko Non dama lay jox benn Non noonu lay demee noonu lay demee noonu lay demee parce que bul fàtte ne bourse de sécurité familiale bi ñu koy def dañu woo ANSD ANSD agence nationale de la statistique et de la démographie bul fàtte structure bu sérieuse la politique ñu def ñu dara ay borom xam-xam rek lañ koy dénk ñaareel ba ANSD dafa bokk ci ñi nga xam ne dañu am norme NSDD mooy ñi nga xamante ne bëriwul Afrique moom ak xaw ma Île la wala xaw ma Maroc defe naa ñoo ko am Afrique saa yu ñu génnee ay données institution internationale dañ koy jël sans contrôler parce que dañ leen di defal évaluation bu tax ñu ne ñii nangu nañ seen ay chiffres. Mhm. ANSD dafa defar li nga xam ne moom la ñuy wax cartographie de la pauvreté ne Sénégal boo demee dëkk sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam fii la ndóol gi gën a bëree fii proportion bi lii la ñii nii la ay góor lañ ñii ay jigéen lañ. bu ko defee sur cette base devons ñu un registre national unique man dama lay jox un exemple FAN.E, amitié lay nekk. Mhm. nekk responsable politique non amul ñun non ah, am na am na non am ah. Non, am nañu fay laal <laughs> bourse de sécurité familiale attention. attention c'est ah, dans tout le Sénégal donc moo mais li ma la ci bëgg wax non xaaral ma non exclure uñu leen xam nga nit ñi dañu joom c'est-à-dire les villes dañ naan elles n'ont pas de territoire parce que ville bo gis ay communes ñoo ko constitué ñoo ko constitué te joxuñu ndimbal bi communes yi dañ ne rek na préfet bi wala sous-préfet bi ñëw and ak maire yi and ak euh, euh, délégué de quartier yi ànd ak organisation communautaire de base yi ñu génnee fichier bi né fi kat japp nañ ne diw kërëm amna ku fa doon liggéey mais fan yi liggéeyatul. Mhm. diw japp nañ ne nangam fi, am na daara joo nangam loolu lañ ci jublu. mais li ma la bëgg wax rek mooy organisation bi man tay fan Point Amitié bi ma dëkk je ne suis pas maire je suis pas membre du conseil municipal. Mhm. mais donc maire bi tay bu ñëwee. Euh, préfet wala sous-préfet woo ko ànd ak ñeneen ak ñeneen di séddale lu normal la parce que moom mooy représenter l'exécutif local. Mmh. donc loolu nit ñi dañu war a rafetante njot même man ci camp politique bi ma bokk yenn saa yi ma dégg ñu ne maire yi ne Dakar ku ne génnee nga 100 millions 240 millions 300. est-ce que ci mbir mi la jëm est-ce que du jël leen li commandé que leen ñu damm seen poche nañu rafetante njot ndaxte jamono jii ñu toll. jamono liggéey dafa yàgg am moo tax. dëgg la mais Sénégal changé na. situation d'exception lañ nekk. waaw d'accord na très bien moo tax may bañ ay mmh. lobby capté. déedéet mbir bi ma jox la benn exemple. Mhm. dama ne sànq bala paase ma ne li gendarmerie li armée yor ci ay camions. Mhm. est-ce que ñun jar na ñuy loué ji ay camions di enrichir une personne pour distribuer des vivres. waaw xam mun ñu mettre à contribution l'armée la gendarmerie et même la police. mais mettre nañ leen à contribution parce que bul fàtte pour seen camions yi laa wax. xaaral ma wax la bul fàtte tamit ne ñoom dañu am fonction de sécurité te attention. président li mu dajale ci ndimbal yóbbee ko ci biir réew mi mosul am Sénégal 140 000 tonnes la papa Papa, allez, 140 000 tonnes. Beaucoup c'est de lait par camion de 40 tonnes, ça te fait 3 300 camions. Fan le que armé as Deuxième chose, armée fin de ni rien sur sur des opérations de sécurisation. Gis nga netay di ni, diga nete frontières yi, ni nga wara surveiller. Kon nyom dañu am ligay bu ñu wara def. Gis nga tay ne couvre feu bi sax, bari na quartier yo xamne ñom ngay ñu Donc ay fonctions la yo xamne dañ ko mais li wara dalal xelu nit moy ki une bourse de sécurité familiale.

non mais président est-ce que mënutoon jënd riz vallée bi imposé ko comme mi ngi doon wax ne euh, il faut ñu def euh, autosuffisance alimentaire. waaw xaalis bi euh, mu dem jënd riz vallée bi yëpp. waaw xam nga ceeb bi ñuy jënd. waxuñu ne riz importé wala déet. képp ko am stock danga koy andi dañ naan képp ko am stock bu toll de mille ba nangam tonne na ko andi. mais ñun looloo ñu gën a arrangé parce que situation économique bi ñu nekk ak jamono ji li mu laaj mooy di di di di gën a jël sax li nga xam ne Sénégal. lañ ko bayee waaye nag waaye nag na fekk mu disponible. parce que ñun li ñu seetlu ci statistiques yi mooy ceeb bi en général bu ñu ko bayee ci vallée bi frontières yi dañ koy jënd waa Mauritanie di jënd waa Mali di jënd ak yu demee noonu ba nga xam ne sax ñun yenn saay dans le milieu urbain dañuy am difficulté pour jot ci. Mhm. waaw ñu ñu continuer ci euh, est-ce qu'opération de désencombrement bla laa bëgg nu ñëwaat ci couvre-feu bi boo ko tàmbali woon du gëna yomb nga fokk waaw. parce que euh, xamat ken kenn waaw. à partir de 20h ngeen encadrer seen nit rek def seen opération de désencombrement bla couvre-feu bi di jeex ngeen leeral Dakar. waaw xam nga ñu ngi koy continuer di ko def mais euh, d'abord bu situation bu mel ni amee ñu def ay restrictions ci circulation yi ñun dañ taxawoon tuuti parce que tamit bëgguñu euh, li ñëpp di tere ñu koy def léegi nag ci diggante bi waxtaan nañu ak ministère de l'intérieur préfet yeeg sous-préfet yi ba autoriser waat nañu op équipe yi parce que li ma la wax 450 jeunes yuy xëy di bale ay oto yuy génn di dajji ak yu demee noonu loolu tamit dafa laaj benn encadrement te bëgguñu mu doon pëccëxoo boo xamante ne bu ëllëgee kenn du ko mën a gérer ndax fi mu nekk nii wàllu santé léegi nag bu ñu demee ba gis ne mën nañ ko def te amul benn risque amul benn problème dinañ ko mën a continuer waaw ndaxte liggéey bi tamit da ko laaj te fi mu nekk nii jamonoy set ak setal la nekk Pape Alé Pape mbiru coronavirus bi ku mu yeewul <laughs> dara dootu la yeewati. absolument nee naa la loo xamante ne bërëbu jaamukaay yàlla yi daanaka lu ci bëri nit ñi mënatuñ fa dem. Mm-hmm. aéroport yi nga xam ne mooy seen symbole dynamisme monde bi ku ne di jël avion di dem di dikk gare routière yi lépp ñu tëj ko loolu mooy wane ne war nañ defaat attention président de la république bi muy jël ci euh, programme bi di wax zéro déchet di wax reforestation dafa mel ni jamono moo ko laaj. ñu gën a organiser wu ñun africains yi yeeyoo nañ set set du tubaab bi rek ko moom organiser du tubaab bi rek ko moom man fi mu nekk nii bokk na ci programme yi may gën a xalaat di ko proposer président te président yàgg ci insister mooy ñu defaraat suñu marché yi Papa Alé fii ñu toll tey loolu tamit suñu mbokku maire yi moo tax ma koy wax collectivité territoriale yi du yoon en mille 2020 marché yi du am gestionnaire marché yi dafa war a am heure bu ubbi heure bu ñu koy tëj am foo xam ne fa la ñuy jaayee ginaar fa la ñuy jaayee animaux yi légumes yi nit ñi bu ñu paree ñu dajale mbalit yi dajale UCG ñëw jël xoolal tey Pape Alé li lay won ne jamono soppeeku na dañu commencé benn programme boo xam ne moom mooy pose des bacs à ordures xam nga bu njëkk ba bu ñu nee set dañ naan ana bacs à ordures yi ana pëllu mbalit yi. Mm-hmm. weer bi posé nañ ci Dakar 500 bacs à ordures Pape Alé benn lañ ci sàcc benn moo ci yàqu te bu njëkk ba dañ la daan wax ne boo ko tegee balaa une semaine nit ñi sàcc ko jël ko dugal ko seen biir kër wala yu demee noonu tey jii nii. Euh, Pape sénégalais ont ñi am conscience bu donc si ñi mois prochain nga xam mu law ba grande ville yëpp ku nekk am say pôle mbalit te tamit day créer emploi tay am nañ ay avenue ay di def tournée di di chaque samedi wala dimanche ñu ñëw jël auto yor ndox ko donc loolu yëpp nga xam ne. njëriñ la mhm. suñu réew te war nañ ko yéenewante donc foofu la ñu war a toll ci wàllu organisation leneen li nag mooy tamit marché yi encore Pape wax naa ko léegi dama ciy delluwaat risque bi ñu am wax nga ko ci coronavirus mooy nit ñi di fa dugg <clears throat> di bañ a respecter distance de sécurité yi di bañ a respecter norme de sécurité yi sol masque ah jël distance yi bu ñu duggee di raxasu ak yu demee noonu. Mhm. mais tamit mala ya fa ne ñu jël leen teg leen fa ñu war a ne ñay jaay set setal état bi mi ngi waaj am programme bu am solo moy tabaxaat yenn marché yi yokk capacité yi da ngay gis marché bo xamné 100 personnes wala 100 places moo moko ko taxoon dans les années 70 wala dans les. est ce que état dina ko mën def ak résilience économique buñ nek amuñu xaliss de parce que daf ci bokk yeen seen 1000 milliards yooyu amna mais 1000 milliards yi amna ci kay tegu na ci kaw yu bokku ndey ak bàyyi tegu na ci kaw table yu bokk ndey ak bàyyi kay boma laaje mo wax la naka la. naka la d' abord. état du hmm. Sénégal dafa am ay dépenses yo xamante dañ koy wacc xam nga né président fi mu ne ni kenn tukkeetul sur le budget deuxième chose. investissement auto non président chef d'état ah, il fait partie il fait partie ah, mais il fait partie du leader. Ah, il fait partie des leaders de ce monde. le G8 fait partie le G20. G8 G20 G15 annulation de la dette lañ ci eh. di waxal Afrique. Afrique chef d'état mais mais deuxième chose deuxième chose <laughs> deuxième chose Papa allez. mais Pape Euh, situation bu nous ni mhm. nit ñi dañu wara organiser wu am ay habitudes yu best, li gëna am solo moy ñu soxla kilifa bu tew taxaw di te président mi ngi koy def conseil des ministres. mais non mais mais d' naa mais ba léegi moom man président man gis naa Macron génn dem visiter hôpitaux yi mais président du génn sax dem hôpital fan jege na ko. soriwul Mermoz président liñ ko ñu solal ko combinaison mu dugg. déedéet loolu xam nga mën nañ jàpp ne folklore la. du folklore de du folklore de. day wane ne malade yi mi ngi seen wet. Pape Alé xam nga président fan lañ koy xaar. waaw mu aar sénégalais yi. xam nga président fan lañ koy xaar moom mi ngi aar boppam déglul li ma lay wax. xam nga mm. ci lan lañ koy xaar. Mm. mu aar emploi wu sénégalais yi li am solo mooy tey

xam nga am na loo xamante tamit yenuwul maanaa est-ce que borom xam-xam yi mooy wax ne nañ dem foofu parce que maladie tey ñoom Macron gisoo leen ñu seeti maladie dañu dem di seeti ay système de santé ndax mi ngi en place wala yooyu attention loolu ngeen war a wax. Mm. te ñun bu ñu amee kilifa dañu war a. non sol na masque mu nekk dans toutes les waaw mais est-ce que hôpital la boo xamante ne ay. malades de recevoir hôpital yëpp ay recevoir. deuxième chose waaw ay ci ci xaalis bi. 1000 milliards. yu bokk ndey ak bàyyi. lu jafe teg ngeen ko ci kaw taabal xam nga lu tax. parce que crise bu amé institution yu bari dañuy taxaw Sénégal d'abord dafa am budget bopam mhm. ñu ne suñu budget bi kat da bëri na lo xamné dañ koy réorganiser wat deuxième chose ñun ak suñu bailleur de fonds yi. amna lo loo dañ leen ko wara rembourser dette mais jamono ji ñëpp ku nekk dafa taxaw né ah yow kat sen dette nañu xol sa encours de la dette service de la dette nga téyé ko bu ko defee nga mën ci liggéey ñaaral ba ñun FMI banque mondiale BID ñoo ñu jëflanteel ñun dañ fa am quote-part ci capital bi saa yu crise joté dañ la koy delloo. dañu la naan kat delluwaat nañ la ko bu ko defee nga mën a fay say dette ak yooyu ñun njàmbaar biñ ci am sax tubaab yi ñoom ñoo ñu ëpp moyen parce que ñoom dañu am ay banque centrale réserve fédérale américaine ñoo xam ne ñoom dañu am la possibilité d'apporter des concours à l'état maanaam bu jamono jaxasoo ñoom mën nañ jël ci xaalis bi ñu yor joxe ko ba ñu jappalé sen sen réew par exemple si la banque centrale européenne né dajalé na 750 milliards di jëndat dettu état yi ngir permettre leen ñuy dem di lebiwaat di mëna jappalé nit ñi lolu ñun amuñu faculté bi donc ñun 1000 milliards yi non lañ ko organiser état bi fay organiser wat budget lu 10 la nak lu 10 la parce que bo xolé budget état du Sénégal 4400 milliards tay milliards. Si 1000 milliards dajalé 1000 milliards c'est au moins un quart de la prévision d'exécution. Mhm. donc lolo effort bu rëy la mais li am solo moi ñu am crédibilité bi am organisation bon ça yu ñu ko soxlaa ñu mën ko mobiliser te gis nga ko vivre yi ngi organiser appel d'offre yi def nañ ko jeudi ou vendredi defe naa ne lépp dina y a yemb ci lim nga xamante ne dina mën a gaaw. mais yow ce ministère ci loolu ana service d'hygiène waaw gars yi ñu ne ñu ne ñu ne man ñu Abdou Karim Fofana ñoom dégguñu ko fenn. waaw nit ñi dañuy service d'hygiène nit ñi dañuy juum xam nga lan moo service d'hygiène d'abord yow service d'hygiène sax waaw. service d'hygiène. Mhm. Euh, c'est vrai que service d'hygiène lu tudd waaye ministère de la santé. parce que dafa am dafa am l'hygiène publique au sens sanitaire et l'hygiène publique au sens euh, du cadre de vie donc euh, ñom walu santé yenn say ñone ci all bi di leen jàppale ci affaire programme de vaccination yi fi tamit bu amé lo xamné prévention sanitaire la ci ay mhm. ñam ak ay zone yo xamantene dañ ci mais nak dañuy liggéey ak ñun ñun bu ñu leen soxlaa dañ leen di wo mais fim nek ni dañu war Sénégal waxé ben baat jamonoy prévention sanitaire lañ nek jamonoy mbass lañ nek ministère de la santé mi nga xamné ne moom moo jiitu moom la ñu a ak ay expertam ñun li ñuy moytu moy di génné ay message yo xamné ne publicité yi ñi def sax dañ leen koy yónnee ne leen set leen ndax dëppoo na

yobou fa ay gel yobou fa ay masque nit ñi di romb ñu leen koy may di leen expliquer lan moo tax ñu war ko def donc lool prévention la mbëbës fi mbalit di dem ñu ngi koy def tay ji ni ñi ngi dem par exemple xam nga ñun ñoyor programme zéro bidonville quoi yi nga xamné natu ñu leen melu ñu ni leen wara mel ñun suñu équipe ñang fay dem di leen expliquer ne ah mbaa xam ngeen li xew ci réew mi li ñoo leen ko jappalé sablo waye bo leen xëyatee de leen raxasu bo leen di waxtaan de leen sorienté dee leen def nangam donc loolu mooy message bi nga xam ne dañ ko war a porter moo xam télé la moo xam rajo la moo xam secteur yi ñun suñu ministère rek à l'échelle nationale service régionaux yi ku ci nekk yónnee nañ la matériel jox nañ la jumtukaay yi nga xam ne moo war a tax nga mën ko expliquer ñi ngi def campagne publicitaire yi comme structure yëpp ni ñu koy defee mais nag ministère de la santé moo jiitu ñun dañ ko war a jàppale ne ci wetam mais service d'hygiène ministère de la santé la nekk te fi mu nekk nii comme ministère de la santé moo yor liggéey bi dañ leen war a bàyyi ñoom ñu am toute la liberté ñu bañ di euh, di di fexé di di perturber un peu message yi ñuy joxe. mais lima ma yow ya dañ wax fi ne da ngeen da ngeen tëj mbëbës. waaw. lu tax ba légui tëju leen ko. non waxuma ne dañuy tëj mbëbës. lo wax. lolu dañu modifier wax ci mbëbës état du Sénégal président de la République da ci jël matuwaay bu am solo créer programme bi ñuy wax Promojet programme de modernisation de la gestion et de l'économie des déchets mu ne Sénégal depuis 1960 ba léegi mbalit lenn lañ ci xam dajale ga suul. Pape Alé président ne dëkk yi ma jëm yëpp mbalit bi dañ koy jël segg ko li nga xam ne mën na créer énergie ñu def ko énergie li nga xam ne mën na créer tos xam nga tos. moy li nga xam moy engrais yi nga xam biologique la diko mëna utiliser ci biir tool yi. mu ne lool ndax mën nañ ko def ñu defar projet bi nga xam moy mooy Promojet ñu défendre ko banque mondiale joxe na ci 125 millions 125 millions de dollars yoyu xam nga naka lañ ko na a utiliser. Hmm. projet bi mot na trois millions de dollars BEI da ci joxe. Euh, agence de coopération espagnole agence de coopération française étudiante. ci joxe. Mhm. D'abord, abord dafa am fukk ak ñaar ci ay euh, décharge sauvage yu nekk Sénégal am na bu tudd Mamatoro dans le sud Ziguinchor boo demee Gandigal ca Mbour boo demee Gandong, am na fa. Mhm. ak bi nga xam ne mooy Mbëbës. ñu ne lan la def Pape ñu ne dañ koy réhabiliter progressivement ndaxte. la ma réhabiliter progressivement dara jërul ñu jël problème mu Mbëbës dem yobbu ko Géejawaay wala ñeu andi ko Pikine wala yobbu ko fenen dëkk yi ñi ngi organiser wu mooy fexe jël ko gas ko dajale mbalit yi defaral li nga xam ne moom la ñuy wax géomembrane couvrir ko tëj ko jël nag li nga xamante ne mooy ay espace vert defar ko ba nga xam ne mën na nekk jardin public te du xeeñ du am benn xet man yóbbu nañ ma ba Clermont-Ferrand dem naa ba Maroc dem naa ba Madrid fu ne ma xool naka lay fonctionner puisque man duma spécialiste question bi ba mu leer ma ne lii kat solution bu Sénégal mën adopté léegi nag bu loolu passé ñu implanté fa usine boo xamante ne day permettre mbalit yi bu ñëwee ñu segg ko traité ko génnee ci njëriñ dama lay jox exemple tey jii mbëbës boo fa 2000 personnes ñoo fay liggéey 2000 personnes lañ wax 2011 2000 personnes yooyu noonu nee nañ seen chiffre d'affaires journalier 17 millions la boo ko dajalee ci at mi nee nañ peut-être 6 euh, milliards et demi mais est-ce que emploi yooyu dañ ko war président li mu wax mooy nañ ko organiser waat ba fexe ku ci mais dans la dignité mu set mu organiser mais bombe écologique la. mom la wax légui nak résorption progressive boobu réhabilitation progressive boobu la lay expliquer. Mhm. mbëbës 114 hectares la. état du Sénégal bu ko toppatooyee ba def ko ni mu wara def 30 hectares yi rek moy don décharge décharge bo xamné day industriel organisé bo démé tay Abidjan ak Kouédo ñu ngi nek diko défar defar nek ni légui nak a 114 hectares si ci a 30 hectares mu desal 84 hectares nous aménager ko un parc public végétalisé, ko forum de di montagne nous comme li ñuy fait nga xam ne dinañ mën a régler problème mu déchet parce que caaginu jël déchet wu Ndakaaru di ko yóbbu beneen région. di ko mais xam nga loolu du lu bees projet boobu déggoon naa ko fi ay temps. mais pour la première fois nag banque mondiale signé na joxe na accord bi ci mois de mars bi ne jox na Sénégal 125 millions de dollars BEI dégg nga bi ñu fi ñëwee def seen sommet ci février mm. wax nañ ñoom it ne danañ joxe seen wàll AFD dinañ ko joxe. Euh, wa Espagne tamit dinañ ko joxe état du Sénégal joxe walam projet bi commencé li ñuy ñëk commencé ci at mi bu ko mbass mi yaqul moy ñëk sécuriser zone bi moy lepp lo xamne moy mooy 114 hectares yëpp ñu clôturer ko. mais population bi ñom dañu bëgg ngeen tëj mbëbës. waaw mais mom mais mais tëj bi mënul nekk Pape Alé xam nga waxtaan tamit wax dëgg ci la dañuy jël problème mu mbëbës dem yobbu ko feneen li mën moy fajj jangoro bi sa jàng sa tànk bu amé gom dag tank bi ngay def wala fajj tank bi. ñu li ñu jàkkoor mooy mën nañ faj tànk bi te tànk bi dañ ko dagg te loolu nag mooy li nga xamante ne mën na nekk Pape Alé ku nekk am sa njëriñ tey jii problème mu Mbëbës li ñu gën a seetlu xam nga lan la mm-hmm. boo fa demee c'est impressionnant amul xet situation bu difficile la nag ndaxte ña fa dëkk ay saxaar la ñuy jot saxaar yi nag ña fa ne di liggéey ñooy taal mbalit mi loolu nag la ñu war a janvier ne poste de police avancé en trois mois defar nañ benn poste de police avancé boo ne caabi ci weer bi dinañ ko jébbal poste de police jox nañ leen andi fa camion yóbbu fa un dispositif policier boo xam ne boo taalee nit ñi dinañ dugg si biir jël la. Hmm. dama bëgg ñu ci nga hmm. lu lu a doy la sept quartiers ci ay quartier ay nit dëkk fa tànt fa ne fa ay doom di fa juddoo ñun nag loolu lañ bëgg Euh, ñu améliorer ko man ak ministre de la femme ministre de l'intérieur ñu ciy liggéey xale yi ñu génnee leen bu ko parce que gone am na foo xam ne boo ci toolee danga war a jàngi am say chance ni ñëpp. Mhm. ñu organiser liggéey bi ba mu ànd ak dignité nga xam ne dangay ngay xëy ñëw liggéey si ci comme ni ko tubaab yi defee muy jaar ci ay tromel ay machine nga jël li ngay jël jël sa wërsëg dem sa yoon te du niru loolu nga xam ne ay nit yu ñu génnee ci nit ñi ñoo koy liggéey ay nit yu njaay ñoo fa ne ñu organiser di liggéey di ci am seen wërsëg. locataires yi mer nañ trop. d'abord un. état bi li mu leen diggoon na dañuy wàññi li nga xam ne moo du loyer bi. Mhm. loi bi mënuñu ko appliquer. Mhm. ñaareel bi am na ñu ne ma sóoruñu leen ci mbiru coronavirus bi te am na ñu liggéeyatul. ma tàmbalee ban coronavirus bi wala loyer yi. ci dañ ko loi bi xoolal fu la neex tàmbalee. ñu boo fàtte ma fàttali la ko ñu tàmbali ci coronavirus bi Pape Alé. waaw coronavirus état du Sénégal li mu def dafa am solo li mu njëkk a def mooy jàppale ñi néew di doole ñi néew doole benn. fexe ba ñu am lu ñu dundee ñaar mu yónnee leen cent quarante mille tonnes yooyu ñetteel ba képp kuy liggéey mu ne amul licenciement ñetteel ba mu ne ku nar a def chômage technique na nga fay soixante dix pour cent wu salaire bi donte nit ki liggéeyiwul mais ñeenteel ba mu ne day dimbali nit ñi ci pouvoir d'achat wax nga ko ci njëlbeen am na ñoo xamante ne néewuñu doole ñi ngi góor góorlu ñi ngi yor taxi ñi ngi liggéey ci restaurant ñi ngi jaay ci mbedd mi mais mbir mi daf leen di. impacté impacté mhm. mais ci ban moyen ci ban yoon lañ mën a fexe ba ñoo ñëpp ñu dimbali leen. mais moy courant ak ndox tay jii bu fekkoon da ngay fay facture 15000 francs wu ndox état bi eh, teggil lako da ngay fay facture 15 mais état lal na la. donc c'est un soutien dong la. c'est un soutien au pouvoir d'achat. léegi nak pap ale euh, état dafa am lu mën ak lu mënul man bokkuma ci ñi nga japp ne jàpp wax rek nañ ko yeb état dedet état moy liñu ñu bokk dañ ko wara sam sàmm waruñu fexé rek buñ né nangam nit ki defé na né boy gor gor lu di liggéey ñu teggil la courant ak ndox teggil nañ lu bari lu yaas nag leneen la tey boo ko bëggoon def sax noo noo koy defee ban fichier ngay jaar est-ce que man du ñëw sax dugal benn kayit ne man nangam laay fay loyer fekk fayuma loyer dafa am loo xamante ne par les moyens mën nga ko def ndaxte administrativement organiser nañ pour am fichier bi mais tey boo ne newoon loyer nañu sëf état lu mu àttan tey jii fi ñu toll mooy jàppale nañ ci nit ñi ndox ak courant ñi nga xam ne ñu ngi góor góorlu te mën na am affaire bi impacté na leen jàppale nañ leen ci loolu jàppale nañ entreprise yi ba nga xam ne ci wàllu fiscalité euh, dinañ leen yombal lu bëri fay seen charge patronale ci yenn conditions yeeg yooyu léegi nag ñetteel bi mooy lan fexe ba nit ñi perd seen em bañ a seen emploi fexé ñi nga xamné chômage technique lañ nekk ñu am 70 sen salaire wayé fexé tamit nit ñi ñu jappal leen sen pouvoir d'achat woyofal leen courant ak ndox mbiru loyer nak leneen la man gëw né suñu ne état bi war na egg fofu. légui nak continuer ci benen bi. benen bi nak moy mbiru loyer deug la président de la république bi mu egg dafa gis né loyer bok na ci li gëna a sonal sénégalais yi. ñu mhm. bari lañuy fay lu li lay wan ne am ci yéene bu reuy moy 2014 bi mu jampé dafa woté ne nañ défar loi ñi nga xamné ne dañuy fay loyer entre 500000 ak 1 million. ñooñu ñu teg leen nangam ñi nga xam ne dañuy fay entre cent cinquante mille ba cinq cent mille ñu wàññi ko defe naa de euh, quatorze pour cent ñi nga xamante ne nag en dessous de cinquante kenn respecté wu ko quatorze pour cent xaaral ma wax la rek ñi nga xam ne en dessous de cent cinquante mille ñoom ñu wàññi ko de vingt pour cent léegi nag Pape boo bëggee dégg-dëgg hmm. loi bi gis naa ñu ci bénéficier comme gis naa ñu ci bénéficier wul léegi nag loi yenn saa yi di nga def mécanisme boo xam ne dina dox nga jékki-jékki soppi ko loo tax ñuy soppi par exemple tey wàllu hygiène publique

am na euh, ñaari néeg. mais foofu terrain boobu mu doon contentieux am na kenn ku ne moo ko moomoon. Sénégal waaw bés bu ñu jëlee fa am na contentieux. waaw mais mais naka nga mënee wax. ne mooy dëkku Alioune Sarr bi. waaw dëkku Alioune Sarr Notto xam nga nit ñi. Notto Diobass ngay mais foofu forêt bu ñu déclassé la dëkk la boo xamante ne forêt. mais dafa am ko moomoon avant. ngeen koy jël mais nit naka lay moomee forêt. non foofu ngeen tabax bëgg nit 2016 xaw 2018 l'État du Sénégal 2016 a décret pour déclasser forêt là. parce que dañ ko classé forêt mais amul woon benn garab bu fa ne. Mhm. nit naka lay forêt. ci ay kayit kay forêt nit mënu ko mom état moko mom mo gëna gën sax domaine national xam nga domaine national da ngay jël immatriculé au nom de l'État, euh, def ko domaine de l'État, état door ko jox nit pour mu def programme immobilier mhm. mais li forêt la manam buñ ko bala ñukay immatriculé dañ wara def décret déclassé ko. fore boo xamante ne amul benn garab la dañ ko classé depuis les années trente mais boo fa demee amul benn garab amul dara ñu gis promoteur bu sérieux boo xamante ne dans sa carrière réaliser na Sénégal plus de 2000 logements ay immeubles ay logements yoo ne ñu ngi fi mu def dossier am nit ñi topp ko ba tey jii commencé na def ay logement am ngunu ginaar yooyu nag ñuy wax tey <laughs> li ma la ci bëgg a wax rek mooy am naa sant naa yàlla bu baax ndaxte bañ fa ànd ak syndicat enseignants yi ñoom euh, SAEMS CUSEMS ci seen programme logement yi bi ñëwee dama leen ne au lieu ngeen di topp état du Sénégal pour mu jox leen parcelle de terrain bi ngeen ko xoolee man li gën kay mooy na leen état dugal ci programme bi ngeen di fay 88000 am kër goo xamante ne yéen a ko moom ngeen koy fay 13 ans 14 seen kër président loolooy yéeneem ku ci ne lu lu yaas bi ngay fay weer bu dee am boo xam ne donte banque mënu la lebal dama lay jox tey benn exemple Pape Alé da ngay jël benn taximan boo xamante ne day fayeeku bés bu ne day am versement 10 000. boo ko dajalee ci ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi. mi ngi am 250 000 wala deux cent ñu ne la. Pape Alé kooku nag ngay def ba mu am kër. ñu ne la suuf rek parcelle mètres carrés Dakar rek na millions 3 millions 4 millions 500 Dakar Dakar. dans la grande région ci ci fële laa wax ay Bambilor. ay ay ak dëkk dama lay expliquer mais Bambilor donc président ne buñ ko jaayati kenn nañ ko jël dugal ko dans le programme cent logements yow boo demee di jëndi promoteur promoteur bi suuf si nga xam ci la lay proposer kër prix wu suuf si waru ko valoriser parce que le président dafa jël suuf souci. ne acquéreur bee ko moom ñu ne ñaareel ba bu prix bi élevé, na dañ bëgg a taxi parce que suuf si 20 au coût logement Le taxi 20 au coût logement Si boo ko rek presque kër gi de 35 à 40 donc li daan jar 15 18 millions wàcc na 10 12 millions. mais boo demee ci banque bi da ngay am problème dal naan est-ce que am nga bulletin de salaire ou pas bu fekkee Pape Alé la ñu ne ou Pape Alé patron la Sen TV la nekk yor na bulletin salaire <laughs> donc moom banque bi dina ko lebal lu mu laaj rek ñu jox ko. massa mais sama massa ministre. waaw mais sama mais sama mbokk ñun xam nga. ma ne massa ministre xam nga ñun yoruñu. yéen ministre lu leen président lu leen président compal sax dafa tuuti. non 1 million yooyu. Ah. dafa tuuti trop. Ah, ah, dafa tuuti trop boo xamoon li ñuy daj feneen de. mais xaaral ma wax la leneen ma wax la leneen léegi nag boo demee ba am kër goo xam ne njëg bi wàññeeku na mais boo demee banque bu Pape demee ñu lebal ko waaye sama mbokk mi yor taxi mi nga xam ne dafa dem taxaw euh, banque bi ne ko déet man xaw ma ndax lii ngay am weer bu dee bu ne est yaa ngi liggéey bés bu ne mais kooku naka lañ koy lebale xam ko kenn mënu ko lebal te mënul jël fukki million rek kër gi yomb na wala fukk ak ñaar rek mu fay léegi. Hmm. li mu mën mooy jël di fay nànk-nànk lu yaas bi mu daan fay soixante mille soixante dix mille quatre vingt mille ba cent mille. Hmm. mu fay ko ngir mën a moom. kërëm loolu nak moo tax état du Sénégal teg fonds de l'habitat social dégg ngeen ci euh, conseil des ministres yi mujj ci weeru mars def nañ décret bi ba nommé ku ñuy wax Ousmane Wade nga xam ne moo nekkoon directeur général de la construction et de l'habitat mu doon administrateur du fonds de l'habitat social Sénégal naka la def président dafa jël taxe ciment yokk ci euh, kilo bu ne un franc wala deux francs defe naa su ma juumul ñu dajale ko mu war a doon milliards at mu jot ñu ne képp koo xam ne mënoo financer le pour le banque nous le financer état du Sénégal moo le garantir bu ko defee nga mën a def. loolu bu leeree baax de bu leeree. transparence incha allah euh, transparence boobu ba léegi ñu ngi koy wax te élection ngi am di transparent joxe bourse de sécurité familiale mi ngi am di transparent xam nga xam nga ci coronavirus non mais dañuy waxtaan non Pape Alé Pape Alé àdduna loo gis rek perception ci la bu fekkee jàpp nga ne yow eh. chemise bi nga sol sax clairul dara du clair. mais bu ah, fekkee nag ne. dëgg <laughs> nga wóolu sa bopp mais kay dafa lenn lu ma la bëgg a laaj. fii bisimilah bisimilah euh, cadre de vie yaa ko yor. waaw maa ko yor. domaine public maritime bi gis nga ni ko gars yi di caax caaxee. waa loolu moom war nañ ci jóg. war te man xam lu ma jaaxal président defoon na fa tournée mu taxaw. Mhm. mu ne. Mhm. fii bëggatul gis kenn ku fa tabax. Mhm. man chaque ngoon fa laay jaar di xool di sport di xool di xool foofu amul fépp lañ tabax.

donc c'est des procédures yoo xam ne kenn xamul nu mu demee mais président loolu préoccupation am la saa yu toogee da koy wax ñun service yi ñu fi liggéey mais Pape Alé yow bu ma la fekkee tey nga ñëw yor sa titre foncier ci suuf soo xamante ne def nañ ci sa tour ba pare. mais domaine public xaar moo la mais xaar xaaral mais dem domaine dañ koy déclassé di ko classé nga pare ñu jël loolu dem nantir ko ci banque jël nañ ci xaalis ba pare commencé ci tabax donc c' est des procédures extrêmement difficiles en tout cas président da koy wax saa su ne nee na wàllu suuf nañ ko moytu. ndaxte jàpp na ne Sénégal bu amee loo xamante ne war na mën a créer yëngu-yëngu

Euh, boulevard de la République ba mosquée de la divinité programme bi 14 km la woon mais ñu koy def nank nank donc 9 km lool tamit ñu ngi koy waaj té lool yëpp bokk na ci luy défar corniche bi mais stabiliser ko ba kenn dootul ñemeeti ñëw di laaj xam buñ ko stabiliser défar ko fi nit ñi wara a doxantu ñu doxantu dama lay jox ben exemple. Mhm. parcours sportif bo ñëwee IFAN kan mo fa ñeme tabax. parce que dañ ko def un endroit public aménagé ko organisation la nature a horreur du vide sa yo baye rek nit ñi ñew xol pap Alé ñew samp ben bant ki ñew samp ben ben tànn bu jek jékki nangam ak nangam donc loolu la lay wax donc loolu moy kay xam gis nga wax na la ko sànq nee la en matière euh, d'aménagement des espaces publics dafa am stratégie bo xamne mom moom lañ teg c'est le quadriptyque d'action ñent bànqaas yooyu nga xamne boko deful rek li nga def manqué na désencombrer nettoyer aménager aménager et faire le suivi bu njëkk ba dañ la naan désencombrer nettoyer nga suivi mais nee nañ doyul boo ko aménagé wul nit ñi ñëw def fa dara léegi boo ko aménagé te suivre ko tamit nit ñi ñëw xaw ko yàq-yàq après nga gis ci leneen mais loolu nag dinañ ci taxaw parce que ñun loolu mënuñu ko nangu. cadre de vie dafa am lu ñun ñoo ko bokk te dañ ci war a taxaw. laaj bu mujj bi xam lan lay doon. waaw lan ngay tontu maire yi wax ne da ngay ñëw dugg seen seen seen kii.

Euh, maire Grand yof dégg naa ko mu wax lu mel noonu. Hmm. mais peut-être war na xoolaat taxi yi parce que dafa am voirie classée ak voirie communale voirie communale moom moo fa am compétence voirie classée état moo fa am compétence donc moom li mu ko li ko war mooy bañ di joxe ay euh, autorisation ay borom restaurant ci voirie classée foo xamante ne dañ koy tëdd d'abord amu fa compétence ba pare autorisation yooyu dafa illégal donc ñun bu ñu leen fa fekkee war nañ leen fa dindi ñaareel ba. moom maire la dafa war a am yërmande ci population yi naka la war a nangoo ñuy daaneel table baadoole yi waxul dara dem di fekk restaurant ñi may bañ a tudd ay nit yoo xamante ne mën na am yàlla may na leen mu leen di defaan naan kenn du leen laal moom bu fekkee maire la te euh, defal population yi moo ko tax a jóg yërëm ñi nga xamante ne ay néew di doole lañ bi ñuy dindi table yi dafa waroon ñëw wax ku gis rond point ni mu mel xam ne du yoon war nañ am yërmande ci population yi waaye war nañ doxal yoon gis nga désencombrement benn kilifa bu baax nee na ma. sëñ saal yu Mbacke Touba ci boppam woote na bataay ñu désenguma kombreel ko sëñ si di Maxtaar def na ko bataay benn kilifa bu baax nee na ma sëñ Abdoulaye lu na marché Touba ñaari yoon ndax problème mu encombrement humain ak ñàkk a organisé donc waruñu ragal li ñuy def dañu am mission de service public Dakar dafa war a bokk ci dëkk yi gën a nañ ko def ñun dañ koy def yenn saa ñu daaneel cantine Lonase daaneel cantine Free daaneel cantine Orange. mais kon bu ñu fekkee ay nit yoo xam ne dañ ñëw yor xaalis war a mën louer boutique wala louer espace def ko restaurant ñu def ko mais lu tax ñuy génn ci biti ba déranger espace public bi donc man foofu laa leen di wooy li ñuy def ñun ñëpp ko bokk politique politique la bu ëllëgee ku yàlla di fal wala di dégg dama tan yàllaa ko xam nga ambition maire de am ban ambition la am ah. liggéeyal sénégalais yi ak président Macky Sall ma dénk lu yàlla di def maire de Dakar loolu eh. defe naa ne tey jii jamono jiñ toll xam la moo am solo liggéey man fan point amitié la dëkk. xana suma ma am ambition fala ñëk tambalé foofu mu ay góor góor am nga fa ambition ah, jeex na xam naa ko moo tax ma tudd ko mais li nga xamante ne moo am mooy li am solo mooy nit boo tollee ci liggéey da ngay liggéey dama ànd ak samay naataangoo yu baax docteur Malick Diop Pape Mayel Diop ñu nekk di liggéey point E di liggéey feneen ak ñi nekk Dakar waa Dakar lañ li ñu bëgg mooy président de la République am fi ndam ndam bi nga xam ne moo jiitu xam mooy lan mooy liggéey ba Dakar waaye kontaan leneen li nag mooy maa ngi sant tamit madame le maire Soham El Wardini nit ku baax a ngi noonu papaale mm-hmm. nit ku amul benn façon nit ku koo xamante ne nekkul ci benn intérêt mi ngi liggéeyal Dakar waaye di liggéeyal Sénégal yi te loolu soxla nañ ko. monsieur le ministre maa ngi lay sant di la gërëm. ci ñëw bi nga ñëwoon tey jii ci biir émission face à Pape euh, di wax ne. am nga leral yu am solo yo indi ni la sa gaay la ñuy ñew ñuy waxtane euh, rew mi ndax buñ leen ko denké ñomit war nañu ñew wax patch bi nga xamne mom lañ ci denk lan lañ ci def di sante di gëreum mbokku euh, téléspectateurs yi di leen dig dajé alarba ci benen émission face à papa lay inshallah